dama jàpp ne vous êtes relativement jeune aujourd'hui la jeunesse l'hymne de la jeunesse c'est la rupture et non la continuité alors que la démarche de Amadou Ba s'inscrit dans la continuité loolu aussi tamit vraiment c'est un défi à la raison waaw ouais, d'accord c'est un défi à la raison man je juge que tey Cheikh mar le bilan de Macky Sall va s'arrêter à partir du 2 avril le bilan de Amadou va commencer à partir du 2 avril mais, je ne pourrais mais Amadou il est comptable du bilan bon, normalement <laughs> <laughs> normalement munoo ko bañ. Ah. mais en même temps. Ah. man wax naa ko tu peux pas refuser que Macky am na lu mu fi teg. naturellement. en terme de confra de, d' infrastructure. Mm. Mm-hmm. en terme de de de cartographie de universitaire. en terme d' accès à l'eau en terme d' accès à l' électricité avec le PUDC yooyu yëpp c' est des programmes. Mm. que tu peux juger. moom laa lay wax. Ah sur les cas de manquement. Mm. le combat qu'on a le plus mené avec Macky c' sur les questions de bonne gouvernance non. Mm. yooyu tamit c'est des question essentielles donc c'est à juger juge et partie gisaguma ñeneen yi lu ñu lu ñu yoregum moo tax man la mënuma ne Amadou moo gën ñële mais gëm naa ne man par par jaar-jaaram ak lu mu li mu yore te gisuma tamit lu ñu lu ñu tàkk léegi am moins que tu me am na foo xam ne takkal nañ fa Amadou. loo xam ne war na mën a wañ a dëkk bi. dina ci ñëw parce que ki muy xëccoo directement. voilà ñooñu tamit il faut nga mën ko teg ci table bi. mais yow jox ma yow en tant a des waaw loolu dégg naa ko. mais les rumeurs y a loolu bu nekkoon ay preuve tangible la. ñu génnee ko teg ci table bi mais amul preuve tangible parce que man maa ko fi njëkk a bind ba kenn waxul moom wax na ko sax ba mu ba kenn waxul j'ai écrit j'ai dit y a que des choses se trament man xam naa j'ai information mais kenn tegalu ma tey benn preuve tangible boo xam ne yóbbu nañ ko ci juge loo xam ne wane nañ ko ne lii diw def na ko xanaa Sénégal ndax yow jullit nga. Mm-hmm. xëy naa ne ne kii na dafa njaaloo dañ ma ne ana ñetti seede yi. Mm-hmm. mais Mansour def na benn problème. Mm-hmm. ñu ne ma voilà Mansour def na ko rek Cheikh Oumar def na benn audio monté nañ ko on sait comment les lan lañ fi déggul ci audio Sonko. dañ lañ fi dogul ci audio Adji Sarr on a entendu